92 tests réalisés, trois sont revenus positifs. Il s'agit de deux cas contacts suivis par nos services et d'un cas issu de la transmission communautaire. Dix patients hospitalisés sont contrôlés et sont guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 222 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 82 guéris et 1 évacué. Par conséquent, on a 137 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population sénégalaise son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective ma liral leen communiqué bu tey bi dimanche juróomi fan avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale donné le résultat du test de mu Si def ci juróom fukki test ak ñaar yu ñu def ñett positif ñaar yi ay cas contact yu ñu doon suivre la benn bi transmission communautaire ñu yëgal leen tam ne tey fukki patient ñu doon yu ñu hospitalisé woon wér nañ bésu tey bi dañ leen génn tout à l'heure ñu yëgal leen aussi ne patients yi ñu hospitalisé ñu ngi yëg tan bu baax bu ñu xaymaa ba mu commencé ba léegi ñaar téeméer ak euh, ñaar fukk ak ñaari cas la ñu fii ci Sénégal juróom ñetti fukk ak ñaar yi wér nañ ñaar yi suñu boroom jël na leen kenn ki lañu ñu évacué bon dëkk bésu tey bi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari patient ñoo nekk hôpital ñu leen di faj ministère la santé de l'action sociale mu ngi ñaan population yi ñu continuer di taxawee ndigal yi leen jox pour que ñu mën a génne Covid 19 bi suñu réew maa ngi leen di remercier bu baax.